waaw ñun ñuy ànd ñu ngi bokk euh, bokk gis-gis listu Pape Diop moo ko dirigé au niveau départemental au niveau communal ñun dañ ñëw représenté Gueule Tapée Fass Colobane on a fait un ticket à deux Cheikh doomu sëñ Moustapha Sy Jamil bu Fass moo nekk tête de liste majoritaire man ma nekk tête de liste promotion euh, proportionnelle donc dañ ñëw déposé si ñoom ñu ngi si biir pour def dépôt yi mais comme ñun ñëpp ñoo bokk affaire bi ñun ñëpp ñu ngi fi. On a fait au préalable de bonnes réunions avec une bonne répartition des quotas que tout le monde a fondamentalement respecté. À quelques détails près, nous avons ñoo bokk 10 gis ci nous donc am nañ ci répartition bu euh, équilibrée te avons dara donc góor ak jigéen mag ak ndaw bokk nañu àndandoo nangu li def donc nous avons suñu mise en place des listes posé le problème vraiment il n'y a pas eu de tiraillement tout s'est bien passé. Moustapha Diop si terrain politique bi nit Diop nit le comme y wax man ak keneen ak keneen bu ñu nekkee suñu gox di di nelaw di gént muy avancer ñuy yeewu muy reculer il est de notre responsabilité à tous tant que nous sommes mag ndaw góor ak ñu essayer apporter quelque chose on n'a pas une baguette magique hein? ne dañuy ñëw changer affaire yi def ko lu kenn xamul non mais dinañ jéem suñu kéemtalaay kattan tek lépp dans la transparence tek lépp dans l'équité tek lépp mu jaar yoon fexé suñu commune dem parce que commune bu melni ni tapé face, c'est une commune avec plein d'opportunités parce que boko xolé plateau rek moko opportunité parce que c'est un centre-ville c'est très commercial il y a énormément de ressources mais ñun gëm nañ ni que suñu euh, commune warna passé passer mu tollu. donc si lolu lañuy ñuy liggéey ñun ñi ñëpp magax ndaw góor ak jigéen moo suñuy liste amuñu problème

Euh, ànd ci ñi nek wa koloban wa Fass yeb wa Gueule Tapée yëpp am nañ yaakaar ni ah au soir du 23 mom les fauteuils vont changer. liggéey pour suñu njabot liggéey surtout pour les générations à venir ñun mën ñu xey changer lépp mais au moins nañ tek ay bases yu claires ñu permettre génération yi di ñëw dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans fekk ci fekk fi autoroute ci développement mais buñu deful lolu top suñu bakkan kese mais duñ ci génn. quel appel contre la violence. Euh, ah violence je pense que c'est des cas isolés quand même euh, parce que vous faites ni de plus de 500 communes New wax violence sur deux ou trois communes C'est vraiment des cas isolés il ne faut pas prendre ça comme une majorité il faut banaliser ça maintenant si politique et on est un pays en voie de développement parce que ku on da ngay toll foo on da ngay pour li nga da ngay pour li mais je pense que plus nous avançons plus euh, euh, élection yi plus les euh, li nekk violence di wàññeeku parce que amna nay temps daan nañ ko fi dégg mu gëna a bëri koñox koñ kenn du comprendre mais nit ñi légui comprendre nañ je pense que ñi def violence moy ñi nga xamante dañu rechercher violence mais ñi nga xamante ni même buñu ñu côte à côte nek ay protagonistes recherché wuñu violence violence du fa am te fi Gueule Tapée face Colobane inshallah bu déssé ci ñun kessé violence du fa am ñun on prône euh, vraiment, parce qu'au-delà de, de, de Bok Gis-Gis, même si nous gagnons mais nous pouvons retrouver. Peut-être à, quelques, à des proportions différentes, mais nous pouvons retrouver. Donc il est important qu'on ait une cohésion des forces communes, de la, de la commune, des forces locales, pour mener, mener à bien Parce que nous voulons faire. Parce que nous, si nous voulons, nous sommes en face de nous, nous sortir il faut nous naxante suñu biir jël mettre parce que liste il faut que ñi dugg fi ñi dugg fële ñi dugg fële je disais la couleur n'est pas importante ce qui est important c'est qu'on puisse mener à bien amorcer à bien le développement de notre commune te ñun ñep ci loolu la ñuy euh défi le pour ñun ñep du man kese ñëpp jàpp naa ne ñi nekk ci biir ñep ku nekk da nga am défi défi bi moy noy def ba jëlee sa gox en un point A yobuko au moins en un point B voire C ñeneen ñi bu ñu égalé mais bu fekkenté ni. dañuy joggé euh, c di jëm b jëm a il faut que ñëpp fi pour taxaw pour jëmale gox bi kanam